الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله bokk jullit yi ñu ngi yeesal di sant suñu boroom mi nga xam ne moo ñu moom mboolem xéewal yi nekk ci ñun moo ko ci def ñu ngi seede na moom dong yeyoo ñu koy jaamu di seede it ne yonentam ba muhammad salallahu alayhi wa sallam jaamam la bu yónni woon ci ñun ngir mu jàngal ñu li ñuy jaamoo yàlla gannaaw loolu mbokk jullit na ngeen xam ne day amul kenn ci yéen lu dul ne yàlla boole na ko ak ñaari malaaka benn malaaka nga féete ndeyjoor di xool lu muy def ci lu baax ngir mu bindal ko ko benn malaaka nga féete ca càmmoñ di xool lu muy def ci lu bon ngir mu bindal ko ko loolee ak foo mën a nekk ci kaw suuf loolee ak foo mën a wéete amul lenn loo xam ne dana ci rëcc boo demee yowmal qiyaama sunu borom dajale lépp mu nekk ab téere téere boobee bu ko defee ñu jox la ko ne la tey kat yaay jàngal sa bopp te it yow yaay regleel sa bopp su ko defee doomu aadama bu nekk gis lépp lu masoon a def ci kaw suuf gis fayam dana xam moom fan lay daal di féete ndax ci ñoom ñi àjjana lay doon wala ñoom ñi sawara lay doon moo tax ak a texe waa ji nga xam ne góorgóorlu la na ba ñooñee ànd ak moom di ko bindal du leen won ci ay jëfam ak i waxam lu dul loo xam ne lu sell la ba ëllëg buy dajeeg téeréem yowmal qiyaama fekk muy téere bu leer nañ téere bu set téere bu ànd ak ngërëmal yàlla yàlla yàlla boole ci suñu téere waaye mu bokkul ci loolu mbokk loo xam ne nii day lu mën a taaral téereb àllaaxira la lu mën a jur ngërëmal borom bi la lu mën a jur ngërëmu tere texe àdduna ak àllaaxira ba pare nekk lu yomb lool buur man ko baadoola man ko ki am man ko ki amul man ko ki feebar man ko ki wér man ko loolu mooy lan mbokk jurit yeneen ci bi alayhi salaam dafa jàkkaarloog sahaaba yi ne leen xalaat ngeen kaay ma wax leen lu gën ci seeni jëf ca moo gën a sell jëm ci seen boroom ba ngeen di jaamu moo gën a gaaw ci yëkkati seeni daraja moo gën xaalis bi ngeen di sarxe moo gën sax jihaad bi ngeen di jihaad di rey noonu yàlla yi ñu ne ko ay yónni yàlla yónni moo noonu moom lu mu doon rasul sallallahu alayhi wa sallam ne leen loolu day mooy baril zikrullah mooy baril zikrullah loolu imaamu malik soloo na ko ak keneen ku dul moom sahaaba bi koy nettali mooy abi darda loolu moo tax ba bokk xamal ni zikrullah dafa ëmb ñaari maana maana bu njëkk bi mboolem lu doomu aadama di def jublu ci jaamu yàlla rek zikrullah la julli koor ak nakka lum mën a doon loolu zikrullah la ndax yaa ngi koy def ngir ndigalu yàlla la lépp loo xam ne xaraam na nga bàyyi ko loolu zikrullah la waaye nag mu am loo xam ne dañ ko koo jagleel jagleel ga mooy lan mooy li doomu aadama di génni ci làmmiñam loolu la ñuy jagleel ak zikr ba gën a màgg ci loolu mbokk jullit loolu mooy téereb yàlla bi jalla waala mooy la gën a màgg luy zikr allah afdalu zikri kitaabullah loolu mooy la gën a màgg téereb yàlla boobee mbokk jullit bu ñu xoolee day suñu boroom moom la taggee gaa yu jiitu woon ca ahlul kitaab ya nee nañ am na ci ñoom ñoo xam ne ummatun qaima yatluuna ayatillahi ana alleyli wahum yasjudun da ngay fekk yahudi ak nasaraan ya téere yi yàlla wàcc woon ci ñoom dañ daan bàyyi seeni nelaw taxaw di ko tari guddi gi yépp suñu boroom it bokk na loo xam ne wax na ko xattaa ci xeet bi nee na day lu néew la gaa yu baax yi daan tëdd di ko nelaw ca guddi ga suñ demee ba njël jot ñu toog di jéggalu seeni bakkaar mbokk suñu royukaay bu mag ba suñu yenit sallallahu alayhi wa sallam loolee ba mu ko jottalee xeet bi def na ca lu kenn dul def def na ca daanaka lu kenn mënul kii nga xam ne mooy Xuzayfa ibnul Yamaan nee na gis naa yonent bi bis jóg di naasi la mu ñëw taxaw ci wetam nee na yonent bi tari suratul baqara wa ma suratul baqara ba su saar ba jeex ubbi suratul nisa ba saar ba jeex ubbi ubbi ali imran ba saar ba jeex ndax ca njàng ma rek la yem nee na du romb benn aayu mbugal lu dul taxaw na ñaan yàlla musal ko ci mbugal mi du romb benn aayu yërmaande lu dul taxaw na ñaan yàlla mu jagleel ko yërmaande googee mbokk yi loolu nekk fukki xisib ak genn wàll nga boole ci ay ñaan mën ngaa wax ko minimum benn taxawaay ba jur na ñetti waxtu yoo xam ne yeneen ci bala sax mi ngi ko taxaw lu jóge trois heures de temps ci benn raqa loolee la Abdullah ibn Masud di nettali mu ne man day mës naa gis yeneen ci di di naafile guddi bis ma jóg taxaw ci wetam waaye dem naa ba xalaat lu bon a bon ndawi sahaaba yi ko doon déglu na ko waaw loo doon xalaat mu ne xalaat xalaat rek dem bàyyi ko jullee ndax taxawaay ba naa taxawaay ba yàgge loolee mbokk yonent bi moo ko doon def waaye sahaaba yi ña ngi ca daan def seen kéemtalal kattan looloo tax ba nit ñu baax ña même boo delloo ca seeni jubluwaay dana jafe lool ñuy wax ay borom xam-xam lu dul ñu boole ca na nii la daan jànge alquran am na ñoo xam ne nii dañ ko daan jàng ci ñetti fan yu nekk am na ñu ko daan jàng xëy na ci fukki fan doonte ne la ëpp ci ñoom ci sahaaba yi ak taabiina ya lan ñett li ci ñoom semaine bu nekk daa lañu wàcc téeréb yàlla bi semaine bu nekk daa lañu wàcc téeréb yàlla bi rawatina ci seen naafilu guddi ya loolu it moo tax ba gàllawaay julit même bu doon téeréb yàlla bi da nga cee jëloon di ci jàng rek loo xam ne ni dafa nekk dix pages par jour da ngay xool na bala ngaa def ñaari weer téere ba jeex bu doon vingt pages la weer wu ne nga wàcc téere bu yàlla bi loolee rawatina yéen ndaw ñi ngal la waay góorgóorlu leen ci loolu mbokk suñu borom subhanahu wa taala def na zikrullah mu nekk luy dundal xoli doomu aadama yi tey jii boo demee ci adduna bi occident orient yàlla xëpp nañu ci alal loo xam ne téeméerin ba sax suñu maam yi amuñu ko woon mais tey la doomu aadama gën a triste tey la doomu aadama ëpp stress tey la doomu aadama gën a xaru tey la doomu aadama gën a teqalikoo lan moo ko waral mooy xol yee ñoo dundatul mbokk lay dundal xol mooy zikrullah suñu borom mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm seeni xol di dala ci zikrullah ala bi zikrillahi tatmainul qulub xolu doomu aadama du alal moo koy dalal du jongama yu bëri du immeuble yu taaru xolu doomu aadama la koy dalal mooy mu jubóog boroomam ñu arrosé ko ci leer gi jóge ci yàlla ca loolu mooy zikrullah yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci li abi musa al ashari nettali mu ne yonent bi alayhi salaam nee na nit ki nga xam ne day mi ngi fàttaliku boroomam ak nit ki nga xam ne da fàttaliku boroomam seen misaal mi ngi mel ni ab niiw bu tëdd ak nit koo xam ne mi ngi dund imam muslim moom nam ko solo mooy kër ga nga xam ne dañ fay tudd yàlla di fa fàttali ko yàlla ak kër goo xam ne kenn du fa tudd yàlla kenn du fa fàttali ko yàlla mi ngi mel ni misaalu ku dund ak misaalu ko dee loolu mooy wane ne war nañu baril di tudd yàlla ci suñu làmmiñ yi di baril di tudd yàlla ci suñu biir kër yi donc zikrullah suñu borom nee nañu baril ko lool mu ne ay yéen jullit ñi bari leen lu ngeen di tudd yàlla kon ndax zikrullah am na lu ëpp déedéet wallahi amul lu ëpp abadan kii di abi darda daana wax danaa tudd yàlla ba ngeen jàpp ne damaa dof ay foo ko fekk ma ngay def zikrullah naam suñu borom nee nañ koy sàbbal bu dégg bëccëg mu di ñiy tudd yàlla ca góor ña ak ñuy tudd yàlla ci jigéen ñi mu ne wa zakirin allaha kasiran wa zakirat aadda allahu lahum maxfiratan wa ajran azima képp koo xam ne yaa ngi sax di tudd yàlla góor ak jigéen suñu borom ne la dinaa la baal say bakkaar te maa ngi lay waajal gën jaamaat yi pay ca muy aljanna yàlla na yàlla def ko muy suñu pay mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala noonu it la ñu moytuloo moytuloo leen ay yéen julit ñi toppatoo seen alal ak taxawu seen njaboot dem ba dox seen digganteeg zikrullah mu ne ku def loolu day yow yaay ki nga xam ne yaay aji perte mbokk alal joojee suñu borom doon ñu wax mu mën ñu itteel da nga xam ne bokk na ci tey li gën a itteel doomu aadama yi ci zikrullah mooy li ñu yàlla nattoo mi portable suñu borom tàggatal ñu ko mu waral ñoo jëriñ waaye quatre-vingt-dix pour cent ci jaamu yàlla yi portable seen lor la ñu ngi noonu nekk na benn drogue ci ñoom boo xamee ni nii guddeeg bëccëg ñu nga ca sëgg bu ko defee loolee mbokk day lëndëmal sa xol loolee mbokk daf lay indil ak càggante borom boobu subhanahu wa taala nee na tudd leen yàlla lu baree baree bari laallakum tuflixuun ñi ngi daje nii di julli ajjuma naam ñu ngi ci zikrullah waaye suñu borom mu ne fa ida qudiyat sala fantashiru fi l ard واذكروا الله وابتغوا من فضل الله واي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون même bu ngeen jógee ca jàkka ya dee leen tudd yàlla lu bari su dee bëgg ngeen doon mi texe mbokk ab julit suñ borom nee na mooy kiy tudd yàlla heure bu toogee heure bu taxawee heure bu tëjjee ci lalam nan ko boole tudd yàlla borom boobu subhanahu wa taala mu ne boole cag di xalaat ci li yàlla bind ci kaw asamaan yi ak suuf di ñaan yàlla musul ko ca la nga xam ne mooy sawara su ko defee ñu xam ne mbokk zikrullah yooyee day daf ci am yoo xam ne dañ koo tënk am yoo xam ne dañ koo boyal am na yoo xam ne dañ koo tënk ci place am yu ñu tënk ci waxtu am yoo xam ne dañ koo boyal loolu moo tax ba tey ji am na zikrullah yoo xam ne gannaaw julli la masalan gannaaw julli ndax doomu aadama bi sëlmal ci julleem rek rob ci kaamil alquran mu commencé jàng alquran wax nañ leen sànq mooy afdalu zikr naam waaye ki pare ci julleem di def ay azkaaram kooku moo gën a dëppoog sunna am na zikr yoo xam ne nii moom la ñu yoonal ci booy dégg aji noddakat bi nga xam ne ñu ngi lay fàttali zikrullah doomu aadama bi dafa waroon a arrêté njàngum alquranam ànd ak noddkat bi ci nodd gi su paree mu julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla may yonent bi yàlla wasila ndax place boobu loolu mooy zikr ba fa gën naka noonu mbokk place bu mën a doon dañuy xool lan la fa yonent bi alayhi salaam jàngale woon booy dugg ci douche ba booy dugg ci jàkka ja bu dee yaa ngi lekk ñu ngi noonu bu dee yaa ngi noonu waa ji doon lekk wax bismillah kee di lekk wax laa ilaha illa allah laa ilaha illallah moo gën a kawee téeméer yoon bismillah waaye bismillah moo gën laa ilaha illallah ci place lekk su ko defee kon loolu ngay jéem a xam topp yonente bi alayhi salaam ci zikram moo gën baril zikr waa ji nga xam ne làmmiñ baa ngi naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah waa ji moom mi ngi def ay zikram yu yemamaay waaye nag place bu mu toll la yonente bi daan wax wax na ko fa kooku moo ko gën a nekk min azakirin allaha kasiran wa zakirat gannaaw loolu mbokk ci rit nañu xam ne day suñu borom yàlla boyal na la nga xam ne nag muy zikr ñu war koy def fu mu mën a toll wax naa la lu ci gën mooy téereb yàlla ba ngay jàng waaye rasul salallahu alayhi wa sallam waxoon nañu raw na day ña nga xam ne ñu tumuranke lañu ñu néew lañu mi ngi noonu ñu ne ko moo ñooñu mooy ñenn yi mu yàlla yónni mooy ñi nga xam ni mooy ñi nga xam ne dañuy sax di tudd yàlla fu ñu mën a toll benn waay ñëw ci moom ne ko ay yéen yàlla yónni man kat charia moom dafa dafa dafa doon lu bëri lool damaa bëgg nga wax ma loo xam ne su ma cay jàppee yàlla subhanahu wa taala gën ma may ngërëmam munoo ko fexeel ba sa lan mi bu mu dañ foo toll yaa ngi tudd sa borom subhanahu wa taala mbokk la gën a màgg ci li ñuy tudde yàlla mooy tudd yàlla gën a fekk ci julli na doon julli nga farata la wala julli nga naafila la suñu borom yàlla ni wa aqimi salaata bi zikri taxawalal julli ngir tudd ma loola tax jullit boo amee temps libre dara gën ko màgg gën ko rafet jógal julli ñu ngi noonu lu dul waxtu yi islam arabal ñu julli ca gannaaw ba ko jullee ba pare it suñu borom nee na lii nga xam ne mooy alal ji ak doom yi day dana taaral adduna waaye wal baaqiyaatu saalihaat xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amala ngeen fexe woon bari baaqiyaat saalihaat moo gën ca seen boroom ci ak fay moo gën ca da ngeen di mébét ngir fekk ko fa bokk baaqiyaatu saalihaat la nga xam ne nii lañ cay tënkee mooy soo jullee ba pare waxal subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett allahu akbar fanweeri yoon ak ñett yéen xale yi déggul wolof mooy 33 fois gannaaw ba nga tëje ko la ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir lii képp ku koy def dana raw ko ko dul def ba ila yawmi din képp kuy def lii dana raw ko ko dul def ba ila yawmi din gannaaw loolu ñu xam ne lii nga xam ne mooy zikr yooyu ñu def gannaaw julli rasul sallallahu alayhi wa sallam doon na waxe nga la waay ki tëdd ci kaw lalam na ko def subhanallah fanweer ay yoon ak ñett alhamdulillah 33 allahu akbar nga def ko moom 34 ci nii it la ñuy gis mbokk julit albaqiyat alsalihat yooyu di subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar jullit da ko war di baril ci làmmiñam fu mu mën a toll ñu ngi noonu fu mu mën a toll gannaaw bi it nit ñu xam ne bokk na ci mbokk ci zikri yooyu ca rawatina gannaaw julli fexoon ba mokkal ayatul kursi fexe ba mokkal kul wallahu ahad kul rëbil falaq kul rëbil nas di ko tari ca gannaaw julli mu bokk ci it yonente bi salallahu alayhi wa sallam lum ñu dégale mu ne ay yéen jullit ñi du kenn ci yéen day mooy xëy wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir lu dul suñu borom yàlla subhanahu wa taala bindal ko yoolu ko goreel fukki jaam yëkkati ko téeméeri daraja faral ko téeméeri bakkaar bindal ko téeméeri tuyaaba loole dana ko aar seytaane ci bis keroog ba du ko mënal dara ba baa guddi di jot mu bokk it leneen lu gën a yomb rasul sallallahu alayhi wa sallam ne ki xëy wax subhanallah wa bihamdihi nga wax ko téeméeri yoon bu doon te ne say bakkaar daa bëri woon ba mel ni puuru si géej yàlla subhanahu wa taala dana la ko baal abi musa al ashari dolli ca ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam day nee na képp koo xam ne da ngaa xëyoon wax subhanallah wa bihamdihi téeméeri yoon nga wax ko ca ngoon mooy fi tàkkusal commencé ba ba jant ba guddi di jot loolu lépp dañ koy tuddee ngoon su boobaa nga wax ko ca téeméeri yoon loolee mbokk da ngay gis rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn du la gën a rafet jëf bisu keroog lu dul koo xam ne jëf na lu mel noonu ca loolu it la waxoon ca kay wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir bokk ñeenti kaddu yooyu subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa allah am na benn bu leen juróomeel bu julit warul sàggale ca may baril di wax la hawla wala quwata illa billah amul kenn ko am pexe kattan ko dul yàlla loolee mbokk ñu war a ci bàyyi xel bu baax di xamit ne subhanallah la ñuy firi mooy sell ga ñeel na sama boroom mooy sell ñeel na yàlla alhamdulillah li ñuy firi mooy mbooli mi xéewal gay ci yàlla rek la jógee moo ko moo ko moom allahu akbar li ñuy firi mooy yàlla day moo gën a màgg lu mën a doon laa ilaha illa allah la ñuy firi mooy kenn yeewul ñu jaamu ko ko dul yàlla gannaaw boo jullit ngan la way bari foo mën a toll di julli ci yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam la ci gën a gàtt allahuma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim sénégal yépp mën nañ la ilaha illa allah muhammad rasulullah salallahu alayhi wa sallam donte ne li nga xam ne moo ci gën a matale mooy niñ koy jullee ci bu ñuy taaya ngan la way buñ ci yenn bu ñu taayaa ba pare it fuñ mën a toll nañuy baril julli googee اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد في الروايه وعن ابي هريره رضي الله عنه جبنا له ني نينا يرنتي صلى الله عليه واله وسلم دي نينا كي جولي من بن يوم يالا دنا جولي سي يوم فكي يوم mbokk bokk na ci loolu kaddu gu gàtt lool te am maana lool mooy kaddu astaghfirullah suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ne ay yéen julit ñi tuub leen di jëm ci yàlla yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ay yéen nit ñi tuub leen jëm ci yàlla man day bés bu nekk danaa jébbalu yàlla tuub jëm ci moom lu jóge fukki yoon loolee mbokk na ci gën a gàtt mooy kaddu astaghfirullah doonte ne façon jéggulu yeneen yàlla yi nekk na loo xam ne nii lu bari lool bokk na ci loolu mbokk rasul sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne buxaari muslim solo nañ ko mu ne ay yéen jullit ñi kaay leen ma wax leen ñaari kàddoo ngi nii yi woyof lool ci lammiñ yàlla borom yërmaande ji bëgg ko lool mu diis lool ci balance bi si pénc mooy subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi subhanallah alazim lii di mbir moo xam ne yomb na bépp julit mu war koo jàng ba bokk ci mbokk it loo xam ne nii ku nekk war naa jéem a xam loolee naka la koy mën a taxawee kii di yonent bi salallahu alayhi wa sallam xëy na julli fajar ba pare am na fu mu doon dem mu fi bàyyi benn ci ay soxnaam joore ibnul xaaris fa mu jullee fajar ma nga fa toog ba yonent bi dem soxlaam ba yoor yoor mu ñëw fekk ko mi nga toog benn place bi zikrullah mu ne ko moo ne day wax naa ñeenti kàddu yoo xamee ni nii bu buñ ko pesé ak li nga wax ca fajar ba tey moo ko ëpp la nga xam ne mooy ay xasanaat ay tuyaaba kaddu yooyu mooy lan mooy subhanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimatihi loolee bépp julit war naa góorgóorlu jéem koo gëstu jàng ko ngir mu daal di doon loo xam ne mën na ko alhamdulilah xutba yi ñuy jaarale fii am na groupe boo xam ne ci jàkka ji lay bokk daan ca jaarale xutba ya soo demoon nga déglu ko nank nank da nga dem ba mën a wattu loolu xamal ne ci toogoon fukki waxtu di tudd yàlla yow wax jooju nga wax moo ko ëpp doole ci yàlla subhanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimatihi xarit boobu muslim soloo na ko mbokk lii ay tënk la ci loo xamee ni nii dañ koy tënkee zikrullah zikrullah moo lay jegeel sa borom zikrullah mooy moo lay soreel cheytaan yi yeneen ci daal islam nee na doomu aadama bi heure buy dugg ci kër këram di wax bismillah cheytaan yi naa dem leen tey de amu leen fi ngeen fanaan heure bu tiimee lekkam ne bismillah cheytaan yi ni nañ dem tey du ñu am lu ñu lekk mi ngi noonu ay sàmmalal sa bopp foo toll ngay def zikrullah ca bokk na la ci gën a matale kaddu bismillah bul def dara lu dul nga jiital ci bismillah la ñuy jeexale xutba bi it mooy li doomu aadama war a jeexale ak dundam yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bi ngay dee li nga mujj wax mooy laa ilaha illa allah booy dee di tabbi aljanna loolu it daana wax ni nañu gaaral suñu mbokk yi faatu ñu wax leen waxal laa ilaha illa allah dana am borom xam-xam yu lay wax ni doo ko wax waxal laa ilaha illallah da nga koy wax ci wetam rek waaye mbokk la gën a wér da nga naan ko waxal laa ilaha illallah keroog yonent bi alayhi salaam bi abi taalib di faat da koo tiim ne koy sama bàyyi waxal laa ilaha illallah loolee mu nekk kaddu bu ma la mën a lay la ba tabbale aljanna waaye mbokk julit yàlla na fekkoon nga dund laa ilaha illallah ca mooy nga jaamoon yàlla bañ ko bokkaaleeg dara waaye yàlla na fekkoon laa ilaha illallah woyofal sa làmmiñ nga ko doon wax lu bëree bëree bëri loolu lay tax ba booy dee mu woyof ci yow lool yal na laa ilaha illallah mujj suñu làmmiñ yal na yàlla defal ñu àjjana ñu suñu wàcc waay yal na yàlla rafetal suñu mucc yal na yàlla nangul ñu suñu koor tiis yi jullit yi nekk ci penkoog sow yal na yàlla tegg ko ci jàmm yéefar yi leen ko teg yal na yàlla delloo tiis ma ci seen kaw yal na yàlla wàcc jàmm ci suñu réew daay di jubal suñu ndaw ila siraatil mustaqim sàmmal ñu suñuy mag te defal ñu aafiya fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin